jàngoro ji di Covid 19 mu ngi woy di sonal ak tiital askanu senegal ginnaaw bi ñu seetloo ab wàññeekute ci wàllum kaay ci weer ñu génn Sénégal mu ngi jànkonteel jamono ji ay jafe-jafe bu ñu seetloo kaay yi dañoo gën a yokk nit ñi xaw wàññi seen loxo askan wi dénk nañ leen suñu micro ngir ñu àddu ci wàllu wile. jàngat bi ma ciy def mooy respecter mesure barrière rek xam nga farlu ci takk masque yi yaakaar naa loolu bu ñu ko defee daal dinañ mën a mucc ci feebar waa fi mu toll nii moom war na nañoo tiit parce que loolu demoon bañ naan jeex na di wax ay set cas ak 6 tey ñuy wax ay plus de 100 cas moom nit ñu war nañ cee tiit quoi. mesure barrière yi ni ñu ko diglee bu ko ni ñu doon defee noonu xëy na feebar bi dina wàññeeku quoi mais pour man ñaaka a respecter mesure yi moo tax feebar bi des fi ba tey. man personne man personne la gëmuma corona am na. man loolu man gëm naa ko quoi man personne gëm ma ne corona am na fii waaw. parce que bu dee corona man dama jàpp ne corona saaru benn feebaru pali la waaw parce que man mii di wax ak yow corona naa ba wér corona du loo xamante ni nii war nañoo mën a teree liggéey war nañoo mën a teree dox activité. wóor na Serigne Touba corona amul genre feebaru pale la rek parce que man dal ma. xam nga it kaa yi yokku nan euh, te gisuñu benn nit boo xamante ne nii taxaw na ne kii dafa corona loolu moo ñu jaaxal parce que gis nga nit boo koy dimbali da koy wan preuve. parce que ñun boobu ba léegi dañuy dégg corona corona parce que amul benn nit bu taxaw ne man corona naa bëgg yi parce que man corona li may wax rek chaque jour dama jàpp ne feebar boo xamante ne ni feebaru pale la dalay dal euh, xam nga toog ay jëm jamono mu dañ quoi waaw man loolu laa gëm te loolu laa loolu laa gis quoi. bien vrai que feebar bi am na am na ñu ko gëm rek am na ñu ko gëmul quoi waaye dañoo war a gëm ne feebar bi am na. ndax boo amuloon tey xam nga duñ dem ba tey ba ba mu toll ba mu toll ci ay ñaar combien de cas xaw ma ñaar cas en fait nag sénégalais dellu ci liñ nekkoon. nañ nañu farataal masque yi. xam nga nañu nañu nañu respecté mesure mesure mesure mesure mesure mesure barrières yi xam nga loolu dong naa mag ñi suñu parents yi ak xale yu ndaw yi xam nga ndax ñun ñooy dem ñun ñooy ñëw ñun jeunes yi xam nga ñun ñoo war a affaire yi takk masque yi euh, respecté mesure barrières yi xam nga loolu kase la bu ñu ko defee affaire bi mun nañu may jàmm xam nga feebar bi dégagé wu xam nga nit ñi nekk seen activité ndax feebar tamit xam nga bu ñu bu ñu bu ñu xeexul mu jógee fi tamit dañ nar a yàqal lu bari dèjà tey xam nga kaay ñi ngi yokkuwaat tey mën nañoo demaat ba ci ay couvre-feu yu kenn xamul te boobaa tamit xam nga day day day day suuxal sunu koom-koom dina suuxal dina dina lu bari daal maanaam kon na jeunes yi waat mesures yi respecté waat xam nga li médecins yi santaane bu ko defee feebar dina dina fi jógee quoi. naam ñenn ñi gëm nañ ko waaye ñeneen ñi itam nee nañ gëmuñu li nga xam ne moo di pandémie Covid 19 bi waaye lu mu ci mënti doon mooy ministère de la santé et de l' sociale digle yi nga xam ne joxe na ko ñeel wàllum xeex mbas moom bee di Covid 19 kenn ku ne war na ci mën a itam population bi ñoom seen jëm bopp war nañu xooleen di naka la ñuy xeexee lii di mbas mi